yàlla xiir ma ci sëñ Mansour ma dem tuub ci moom mu tudde ma Babacar daal di woo Jamil ne ko biis ni tey kii mooy sabab ci kër gi ba bi sëñ Mansour di làqu tàggoowuñu saa yu duggee Thiès day gaare otoom yónnee ci man ma ñëw taal sama oto mun ci sa oto laa yéeg sirène bi day jiitu sama oto topp otoom topp ma yóbbu ko puut ba ni fi jógee kon kenn ku ne xam na ni su ma jotee ndigal jële ko Touba ci doomu Serigne fàllu dinaa dem Tivaouane wuti ndigal su ngeen xoolee internet bi xool Facebook bi di ma gis ma toog ci wetu sëñ Abdoul Aziz Sy Al Amine di porte parole xalif général des Tidianes avant may dem ci semaine yi ci moom dama taal sama oto fekki ko buleel ci tool yi sàkku ji ndigal ci moom won ko ni dama jël décision dugg ci politique bi à Thiès jàppale président Macky Sall mu daal di dugal loxoom ci poos génne ñaari junni ne ma sa carte bi ñaata nga koy jaayee carte mouvement bi mënu ko 100 francs mënu ma 10 000 francs gi nii bu njëkk ci mouvement bi jënd naa ko ne ma nag sama coono du ko fekke sama alal du ko fekke te it bul ma yërëm kilifa la de kilifa kenn du ko fenal mm-hmm. lii moom ma wax bu leen semaine yi laa ko fekk Tivaouane ne ko nag mouvement bi taxaw na ñu ngi ciy góorgóorlu ma sàkku ji ñaan bu ñaanal ma sant ma bu baax ne ma nag lii ngay def nii lii rek laa bëgg parce que Macky Sall li mu def fii Tivaouane benn président def ko fi kon ñun Tijaan yëpp dañ ko war a jàppale kon maa ngi lay féliciter la ci encouragé kon mel na ni li may def nii ndigal laa ci am yemuma foofu bi ma ñëwee Thiès xam ni. président Macky am na fi ay responsable yu ko fiy liggéeyal muy responsable APR yi ma tudd léegi doon ay jàmbaar di béy seen waar ci tool bi Thiès nag dafa métti dafa métti lool nag parce que il fut un temps Macky Sall amu foon doole mais ñi ko fi toogal muy ñoom Thierno Alassane docteur Augustin ak ñeneen Abdou Mbow Kulim Dioum ñoom ñëpp seen doole lañu boole di liggéey ba président commencé am doole fii à Thiès mais nag ba léegi des na parce que Macky déggagul wiiw ci biir commune Thiès loolu nag moom ma tax a jóg ma ñëw bëgg indi du 109 li tubaab di wax du 109 maanaam indi leneen loo xam ne dafa ñëw dooleeku ci li fi nekk ma li tubaab di wax porter l'estocade maanaam fexe ba le dernier coup de masse yi ñu dóor ko pour assurer la victoire de Macky fi fii à Thiès loolu moo ma tax jóg liggéey boobu nag. li ma ko fas yéene defee nii rekk la du ci boole wax duma ma tontuwante yàgg naa Cees te kenn tudd ma nit ñaa may commencé tudd ñenn ñi di wax lu ñaaw ah loolu xamoon naa ni su ma duggee ci politique dina am mais nag man j'ai fait vingt ans d'expérience politique du ma xasante xam naa fi nga xam ni fa teg sama tànk li ma amal intérêt li ma amal solo mooy nit ñi fexe ba nit ñi jàppale ma Macky Sall mu am ndam loolu rek mu am solo. te mu mënuñ ko defee neneen lu dut nii lii ñu def nag neexul terrain bi neexul le parce que nag boo demee nit ñi ne lii soxla dinañ la wax seen bopp waaye li am solo rek mooy li ñu la wax ngela bu leen dig loo xam ni mënoo ko wax leen la nga man soo mënu dara nga wax ci teggin wax bu rafet ñu xam ni kii ay la yéen jéem na li mu man mais fi la yem man nag wax naa du ma diggee mais yéen ñi ma àndal di ngeen xam ni ànd ngeen ak ku jara àndal lépp lu ma man pour jàppale leen danaa ko def danaa ko jéem incha allah ma di leen sant nag di leen gërëm tey moom dañuy monter comité fii ci Grand Thiès nee nañu Grand Thiès dafa metti waaw mais <laughs> tubaab di wax euh, tubaab am na lu mu wax le chemin n'est pas difficile mais c'est le difficile qui est le chemin maanaam adduna coono kese la noof laay néew fi jaamu yàlla moo fi nekk te lii bokk na ci jaamu yàlla def politique boo xam ni bu sell la fexe ba nit ñi jóge ci suuf dem ci kaw ñu am yokkute santi ko seen biir loolu mooy politique loolu la président Macky Sall di def à travers les grands projets qu'il a dans le PSE yàlla nag daf ma baaxee ma yor poste stratégique boo xam ni am naa possibilité d'évaluer l'importance des projets du président Macky Sall à travers le PSE parce que xam ngeen ni dans la région de Thiès ay projet yu am solo portant sur l'énergie installé nañ ko fi dossier yu bëri yooyu jaar na sama ko xam naa njëriñ bi mu amal région de Thiès njëriñ bi muy amal Sénégal lu mel noonu moom ma tax a jóg moo tax bu ma déggee ñu naan nit ñi di wax ni o fonctionnaire warul politique ah kay haut fonctionnaire rek moo war a politique. parce que nag président day définir la politique mais ñun suñu devoir mooy politique boobu ñun ñoo ko war a appliquer ñoo ko war a concrétiser. nit ki nag mënoo appliquer loo gëmul li nga gëm partagé ko boo koy appliquer dafay yomb mais loo xam ni dañ koo définir yow d'accord ci gëmoo ko mënoo ko appliquer kon mel na ni administration bi nga xam ni moo am responsabilité appliquer la politique du président moo war a gën a politique loolu moom véritablement débat bu ñu weesu la te nag Sénégal la ñu nekk kenn ku nekk citoyen nga chaque citoyen a la liberté d'exercer ses convictions politiques. C'est pas parce qu'on est haut fonctionnaire ou responsable d'une administration qu'on n'a pas le droit d'avoir des positions politiques et de les défendre. Absolument pas. man nag je suis quelqu'un boo xam ni lu ma wax def ko dama koy assumer man maa jël décision dugg ci terrain politique à Thiès dugg naa ci te dinaa ci sóobu ba ñëpp xam ni duggu naa ci. fii dañ koo tàmbalee fii mais dinañ jóge fii dem feneen quartier Thiès yëpp dinañ ko sillonné ca rek. bu ñu monté suñuy comité ba pare nag ci la ñuy soog a woo mbooloo mi woo ko ci béréb boo xam ne responsable yu bëri ñëwuñ faa dem muy place de France. man bëgg naa bis bu may woote sama meeting naa ko def foo xam ni mbooloo mi dina fa fees day fekk liggéey naa ko ba pare. wax naa ni man sama stratégie wute na ñeneen ñu ci bëri boo bëggee wone sa parpar ci politique da ñëw. woote meeting jël ay kaar joxe ay 1000 francs joxe ay t-shirt naxanteeg nit ñi ba ñu ñëw wuyu si la mbooloo mi bari ñu defee ni ci am na mbooloo fekk yow ñu duñu sa mbooloo bu ñu say nit man nag damay wuti ay nit ba pare soog koo du ma wane nit ñi ma moom moo waral may liggéeyee nii kon soxna Kumba euh, tàmbali nga liggéey yaag sa ñi nga àndal jàmbaar dëgg nga gis naa fiche maa ngi lay euh, remercier di la féliciter yaag ñi nga àndal. di leen wax ngeen continuer liggéey bi continuer na yaatal parce que Macky Sall lu yaatu la bëgg responsable yi ko fi nekkal dañu war a yaatal loolu mooy li am solo te incha allah man am naa yaakaar ni fii ci Thiès élection yi ñu dëmal Macky Sall dina ko gañe muy élection législative élection yoo xam ni dañoo war a fal ay député am na solo nag pour ñu wax ci parce que nag du loxoy neen rek mooy fale carte mooy fale carte nag bala nga koy mën a utiliser bala ngay mën a voter dafa am kayit yoo xam ne danga ko war a am am na réforme bu bees bu bu ñu indi léegi dootul am carte d'identité fii carte électeur fee ngay boole ñaar yëpp pour mën a voter benn carte d'identité bi rek information yi ci war a nekk yëpp dina ci nekk moom ngay utiliser pour mu doon sa carte d'identité doon sa carte électeur commission yi commencé na c'est vrai coow li bëri na mais comme c'est du nouveau dafa bees il faut que mu am quelques petits couacs au départ mais commission yi dinañ ko yaatal administration bi ci waxa waxtaan ñoom gouverneur ñoom préfet ba incha allah bu ñu yokkee commission yi li ñu leen di sant yéen mooy yéen ñëpp na ngeen dem bindu ji kenn ku ne boo yoree sa carte d'identité bu élection jotee lépp loo jàppoon nga bàyyi ko te dem votel responsable bi nga xam ni moom nga waxal ànd ak moom mu ànd ak yow man j'ai l'habitude de dire responsable politique ñaari yoon rek lay soxla militant ñaar xewle na woote na bàyyi li ngay dem li ngay def dem wuyu ko mbooloo mi yaatu ku fa romb xam ni kii ku am mbooloo la te politique bàyyi leen koog mbooloom du ngeen ko dégg jamais benn benn boobu lay soxla militant ñaareel bi mooy élection day jot yow nga bàyyi li nga jàpp yëpp jël say jumtuwaayu élection maanaam sa carte d'identité dem waaxu wooteel ko fi mu bëgg loolu mooy politique ñu ci bëri ci yéen mënuñoo jote ci mag i Sall donte moo nekk seen xol kon nag foog mu am responsable boo xam ni da ngeen di jàpp ci moom responsable boobu jàpp ci Macky saal mooy li may wax rek góor jàpp ci góor góor jàpp ci góor góor jàpp ci yàlla kon yéen ku ma caam yaa ñi nga àndal jàpp leen ci man man ma jàpp ci Macky loolu laa leen sant bëgg naa aussi comité bii ngeen taxawal na tàmbali liggéeyam tey. liggéey bi nag yéen jigéen ñi jàmbaar ngeen ci lool am na lu ngeen di faral di def mu neex ma lool bokk ci loo xam ne mën naa téye mbooloo bi su ngeen dee daje une fois par semaine wala une fois tous les quinze kenn ku nekk boo ñëw nga indaale sa cent franc wala sa deux cent ngeen di ko nat boole koog carte yi ngeen di jaay nañ leen jox carte yi lu ngeen ci jaay ci kees bi lay des su may dem dinaa yëkkati sama lu tuut jox leen yéene la rek mais du faj seen soxla. parce que wax naa leen tey ci suba ni man responsable politique la boo xam ni li may jéem di ko jéem ci mobilisation. di ko jéem ci mobilisation ay moyens la yoo xam ni sama moyen bopp la jaral na ma ko li may gaañee ci sama liggéey ma am lu ma ciy def pour yaatal mbooloo Macky Sall jaral na ma. loolu nag ay gor rek laa ko mën a àndal mënuma ko ànd ak koo xam ni intérêt euh, moo ko tax a jóg xaalis moo ko tax a jóg koo xam da nga wax tout le temps di ko jox loolu sax du ànd parce que xaalis mën na sax dàkk joxe joxe mën na sax dàq te koo xam ni joxe moo tax nga nga nga nga ànd ak responsable lam lay jox bis bu jeexee dootu ànd ak moom bu jeexalee nga jàll ci keneen loolu du ànd ànd bi am solo mooy àndu ngor ànd boo xam ni da ngeen di soo soxna Kumba bëgg naa lu xewati ci yéen mhm. naa ko yëg parce que nag responsable bi ginnaaw ba ma waxee li mu leen di soxlaa damay wax nag aussi li militant di soxla responsable lu xew ci moom militant bi responsable bi na ko yëg déplacé wu ñëw sagal ko ñu xam ni kii la àndal kii jar naa àndal mais responsable boo xam ne boo xewlee doo ko gis saa yu politique amee rek ci la lay woo nga ñëw wuyu fa ngay dem di tàggu say kilifa ñu xam ki nga àndal loolu du responsable kon lépp lu xewati ci yéen naa ko yëg su ma amee jot dinaa teew sagal leen su ma amul jot naa def sama délégation envoyé leen vraiment la balle est dans votre donc euh, commission euh, carte yi am na koo jox information léegi ne leen lundi prochain dinañu dinañu démarrer démarrer lañ sax mais dinañ ko gën a dañ ko gën a yaatal ma bëgg na véritablement ngeen mobiliser wu dem ci commission yi mën a inscrire lu mën a am carte d'identité bu bees boobu nga xam ni moo leen di mën a permettre ngeen fal le président Macky Sall en 2017. 2017 léegi mu jot de nous sommes en en fin novembre uh-huh. un mois décembre mu jeex ñu dugg 2017 élection yi daanaka yegg si na kon fagaru ngeen préparé wu te élection législative dayo bi mu am solo bi mu am mooy. bu ñu fexewul ba président am majorité ci assemblée maanaam bu ñu fexewul ba sal ëpp ëpple ay député ci assemblée ay jafe-jafe lañ koy indil parce que xam ngeen ni député yi lépp loo xam ni gouvernement bi indi na ko muy projet de loi député yi ñoo koy voté ñooy wax d'accord nañu wala d'accord uñu kuréel bi nga xam ni rek mooy wax d'accord naa wala d'accord uma boo ca ñëwee doole loo fa yóbbu ñu ne d'accord uñu bu ko defee ñu bloqué la boo indee biti ñu bloqué président boo xam ne dañoo wëñ say loxo mënoo dara kooku du président kon nañ def lépp pour que loolu bañ a dal Macky Sall te niñ koy amee mooy nañu jóg dem ci commission yi mën a inscrire bu wote bi jotee ñu woteel ko jox ko une large majorité à l' assemblée nationale mu am les de franches mën a dem ba 2019 ñu laxasuwaat jàppale ko 2019 mu amaat deuxième mandat mën a terminer les projet qu'il a pour le Sénégal maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax Euh, tournée bi ñu def au niveau du Diobass dans le département de Thiès doon installé ay comité du mouvement Dolil Macky dans le Diobass euh, joxoon naa leen rendez-vous ne leen filee quelques semaines dinañu daje dans la commune de Thiès pour tàmbali installation comité yi lii ngeen gis nii tey <coughs> excusez-moi c'est l'aboutissement d'un travail qui a été fait un travail de sensibilisation, un travail de recensement, jusqu'à avoir des comités. Nous avons à côté les filles de comités qui sont voilà. remplis. Donc, nous sommes... Ah, <laughs> voilà, Donc, euh, liggéey bi ñu def nii liggéey la boo xam ni tàmbali na yàgg na mais tey dañu ñëw pour installer bureau comité kon soxna Koumba Thiam ak ñi mu àndal jot nañoo def liggéey bi yaatal nañ ko ba mouvement bi am na fi ay militants bu ñu installé fi comité bi ñu ko defee fii Grand Thiès noonu lañ koy defee ci quartier Thiès yépp parce que on a promis au président dañ koo dig ni danañ ko jàppale à Thiès te ci tànk yooyu ci lañ nekk kenn duñu xoqatal kenn bi ñu tiital kenn bi ñu dévier ci suñu objectif incha allah. Euh, euh, firndeel ngeen ne yéen da ngeen jàppale président mais bokk nañ ci affaire. waaw loolu aussi lu jar leeral la parce que en fait euh, man personnellement bi ma analyser paysage politique u Thiès gis naa ni le président Macky Sall am na ay responsables yu bëri yoo xam ni ñu ngi ci biir APR di ko jàppale. ñu ngi def liggéey bu mucc ayib di góorgóorlu di massifier pour le président man j'ai préféré bi ma ñëwee ma créer un mouvement de soutien bu ñu tuddee mouvement dollil Macky avantage bi mooy mouvement boobu dinaa ko mën a taxawal partout au Sénégal te maa ngi koy taxawal taxaw na à Thiaroye déjà taxaw na dans la Diobass mi ngi nii di taxaw dans la commune dina taxaw feneen loolu mooy avantage bu mouvement beneen avantage bu mouvement am te nit ñi ko fàtte souvent mooy que am na ay kilifa yoo xam ni xëjuñu ci biir parti parce que boo waxee parti rek wax par parloo faral kii bàyyi kii te am kilifa yoo xam ne ñëpp dañoo bootu ci seen ginnaaw ñooñu mënuñu dugg ci parti mais bu ñu gisee kuréel boo xam ne li ko tax a jóg rek mooy jàppale ki fi yàlla teg di nga gis ne ñoom dañ sawar ci loolu. loolu moo waral suñu mouvement véritablement yaatu na am na ay kilifa yu bëri nekk ci biir ay kilifa diine ay kilifa aada ak ñoo xam mosu ñoo def politique ak ñoo xam ne également ci yeneen parti la ñu nekkoon. dégg ngeen fi léegi benn ralliement benn conseiller départemental boo xam ne ci beneen parti la nekkoon. rejoindre na mouvement bi te moom it mi ngi def liggéey au de ses pairs ak feneen pour que ñu gën a yaatal mouvement li gën a jàmp mooy bindu bi ci loolu moom lu am solo la bindu ci carte bindu ci commission yi loolu lu am solo la euh, lundi bii di ñëw commission yi dañ ko gën a yaatal kon ñu ngi ñaan ñëpp ñu dem ci commission yi mën a bindu mën a am carte bu bees boobu nga xam ni benn kayit rek lay doon doon sa carte doon sa carte électeur bu ko defee bu wootee jotee nga mën a dem woote te danoo bëgg ñëpp wooteel président Macky Sall pour que pour la première fois Merci. Merci. Merci.